war a dóor coins. kii lu ko neex ah, nag mbër Kamil boo xam ne nii tey jii ci làmb bi muy ñëw ci làmb wéetoon la lool waaye fexe na ba marqué empreinte am ci làmb. Mhm. muy coins booy. nekk xale boo xam nii bari ñi la daan waree bu ñëwee ci làmb and ak waa Lamsaar ak Père Max Mbargane ñu ngi koy nuyu en passage nuyu waa Lamsaar yëpp. yaakaar naa ne muy mbër moo xam ne tey jii bi mu débuté ci làmb ñu ngi doog gis ci benn combat am lañ séentoo ay faayam muy contre waaw waaw ci la ñëw ci làmb bëriwul xeexul deful dara. waay man fi may dugg ak moom mooy Quench ndax tey jii ci làmb porte mooy porte entrée ci làmb mooy mbëri mag yi. Mhm. ndax foofu Quench amu ci problème ndax dañuy gis ne tey jii ni nga defee fee fooy flam bi nga dugg see ci mbëri mag yi dafa mel dafa xaw a taggatéem bi tuuti. Mhm. lan mooy problème mu ci làmb ba ba nga ñëwee ci mbër yi nga xam ne nii tey jii ñooy combat yi nga xam ne mooy la ibbi sa bunt ci làmb. nga xam ne tey jii dootoo jël ci combat bu yomb ndax tey jii ñu ngi lay commencé proposer ay combat yoo xam ne ay mbër yoo xam ne nii ay mbër waane lañu lan mooy problème Quench ci làmb ba tey ji bi la da ngaa conseils yi dafa bari wala ban problème nga am foofu ah non awma benn problème parce boo xoolee làmb li ñu si wax mooy dama si dugg a weet fexe ba marqué sama empreinte mhm. deuxième bi mooy que man làmb aw ma siy mbokk damaa weet si làmb mhm. comprendre nga tey jéen li mu am si làmb man aw ma te dama ko nangul tamit Mhm. dama xam ne bàyyam moo ko liggéeyee loolu man nangul ko nga parce que nga am doom mu doon mbër ngay ñëw mu fekkale si làmb say nit yi say xarit mënuñu def lu dul jàppale ko mhm. comprendre nga parce que loolu bàyyam moo ko liggéey dama kan nangul nag booy keere su ma papa jooy ma koy ñaanal gudd fan ak wér mhm. di ko ñaanal bu baax di ko xamal ne moom nit ku baax la saa ñu wax bu yaram yi tàng mais loolu day fekk mu doon sama combat jéen rek comprendre tey mooy sama combat bi ma ñëwee mooy boo tesee mbër moo xam ne ñëpp dañ na la tegal la benn pièce pour nga daanu si. chaque jour da ngay ñëw pour rectifier loolu si biir géew. da ngay jàpp ne comme sa combat génn la tegal. non pièce la woon parce que xam nga lu tax pièce la. tey que jéen du mm-hmm. sotti. du sotti du sotti du mm-hmm. sotti. ñu jekki rek combat ba taxaw. deuxième bi mooy que jéen ku mu mos a tesel da laa agressé. Mm-hmm. tey daje naa koyoon sa ñu yeb ko naka taxawal. kon du man maay màmm rek daw ñëw. comprendre bi ñu jàppante ñu génne. papa moo ko conseil nga laa xam ne tamit làmba ji nii lay demee. lenn la ñuy xaar sama erreur te duma def erreur si combat bi. loolu moo tax boo piège laa xam ne dugg naa si réussir ko. comprendre nga mais amul lu ñu man daal mbër mii ñuy xamal ne dañuy ñëw na laan coince tay mu dee boobu moo gën a yomb sama làmb. tey ji sa carrière ci sa carrière yaa ngi dugg ci port boobu. yan mbër nga yaakaar tey jii ñu ngi ci te kanam te tey jii buñ ko joxoon Quench ñëpp dañu naan tey jii la Quench di te yow gëm nga ne combat yooyu combat yomb ci yow la yan mbër la. man combat yooyu bu ma koy wax xam nga jotal gu ma fa muy kan tey bu ñu ñëwoon Coins sa Ama Baldé adduna ñëpp dañ naan kii tey mu dee bu ñu ñëwoon Coins sa Boy ñaar dañ naan kii tey mu dee comprendre parce que ñun ay bërekat la agresseur lañ dañuy ñëw pour agresser la man bu ma laa gën a am lu ma neex nga ñëw kii moo ëpp Coins sa doole moo ko man foofu la sama bëri di gën a tijjeeku. Franc mi nga xam dañ la koy jox nag suba ngoon moom mu gëm ne moo la raw ci làmb moo la ëpp doole bu la jàppee mu jeex. waaw xam nga tuuti rek laa siy tontu parce que tey moom wax nañ toog na fii ñu léegi maa bi en ñu toog wax ñu ne ko Coins mu ne non kooku dama kaa xeeb comprendre nga ma di hmm? tamit naka xeeb koo xam ne dala yenu teg la fii fan ma ne xeeb koo xam ne dalaa yenu teg la si mbaggaam waaw bëre ba nga bàyyi mu yenu la comprendre kan noonu franc franc eh, lay wax ah. <laughs> comprendre loolu weesu bu fi indi ma si xuut <laughs> lu sori bu dee kase maa këpp bu dee victoire maa këpp bu dee combat maa këpp bu dee mbooloo maa këpp fuuf kon tey au contraire man lañ waroon laaj may bañ comprendre nga mais moom nee na soxlaaw ma tamit dama koy gën a yombalal moom na xam ne moom kese du adversaire si làmba ji man tey benn mbër laa xam ne ne war nañ mën a bëree mu taxaw na day bëre man muy guy gi moo taxaw na coin sa dinaa ko may chance bu ma amul ama seen wax na a confirmé na si moom ñu laajaat ko si barki démb maa ngi koy siifa mu ne coin sa bu ñu ma joxoon avance am tey tey ma bëree moom kon dama promo problème mu promoteur la am. mais mais balaa ngaa balaa ngaa dem ci beneen combat mooy sa diggante ak Franc. Franc ci ban anam la war a mën a taxaw pour mën a xeeb Quench Boy ndax Quench da ko arrangé wul ci wàllu bëre wala ci wàllu xeex wala ci wàllu lan. wala wàllu wàllu kese la yaakaar moom moom la intéressé xam a tey ñoom dañu am promoteur may profité. di nuyu Mansour Ba di nuyu Père Ba tamit. Mhm. te di ko ñaanal làmb ji ni mu si duggee nii yàlla defal ko réussir. Mhm. dañu am promoteur moo tax. loolu moo tax muy waxee noonu. mais loolu man du ma ko si tontu nga xam ne ko moom damaa xeeb. bu seen combat taxawoon tey ci saison bi ñu jëm. ñu ne jëm ngeen janvier wala mois de décembre. Mhm. yàgg Franc. déggoo li ma la père Franc du ma ko mos a laaj. du ma ko laaj du ma yàgg mais bu combat bi taxawoon seen diggante mais xamal lan moo tax. waaw tey ala moom mu ngi naan ay dañu waroon bëre bu yàgg. mosuñu ma proposé na ma Franc mosul am. tey bu fekkoon ne combat bi promoteur jóg na dox sa diggante ak Franc combat bi taxaw. man lan la Franc mën a xaar ci combat boobu. làmb moom fi bàyyi man faram awma beneen métier bu dul làmb man bu ma bëreewul sax du ma sama dara du dox làmb moom fi bàyyi mbër laa bëre laa fi am mais du ma gis benn adversaire ñu ne gaan Coins mu may minimiser mais kuy minimiser xale bu ndaw. bu fekkoon ne man du ma taxaw ne deful dara si làmb Franc palmarès bu rafet la am am douze victoire douze combats douze comprendre nga am palmarès bu rafet aw ma dara lu ma koy ñaawal si kar am mu ngi si làmb man na doon roi des arènes sax man nangul ko tamit comprendre nga parce que nangul sa waay wàññiwul dara. ndax moom dafa jàpp dafa jàpp ne. comprendre nga mais comme que moom damaa xeeb nee na saa kees lay xaar. non si kaw moom loolu bu fa jiit. xam naa la tool ni mhm. xëccoo bi si kaw moom day métti fa jiit. dafa jàpp ne bu ngeen dajee ci mhm. géew. bata tontu lay doon. mooy lii ma la xam nga franc koo bërilul ngay wax fadam Mm-hmm. mais koo jàpp loo ko ba mu bàyyi nga yenu ko si kooku du ma si moom déggoo da am fu ñu jaar lutte simple comprendre moom lutte simple lañ lutte simple lañ ko gën a xamee moom moom lañ ko gën a ak ndaanaanam mm-hmm. si lutte simple lañ ko gën a xamee mm-hmm. ñi mu fii tudd di ñu daan boobu ñooy ñu ngi jàng bari comprendre bu ñu waxee si moom émission bi fii lay yem hmm? père Bécaye man bu ma sañoon xam nga lan nga may wax sa combat guy gi man a la tay tay tay bu ñu ma joxoon avance dina am dina am dina am dina am bay bal la nuyu nan la waaw sa ngi noonu mhm. dégg nga fi mu dugg ci franc dégg nga fi mu dugg ci guy gi et préparé na wool ma guy